Euh, data center bi nag lu ko tax a jóg moom mooy nu ñuy def ba euh, Sénégal moom boppam ci wàllu euh, donc hébergement wu ay données maanaam lépp loo xamante ne dafay nekk ci xarale yu yees yi en tout cas xibaar yi yi ci ne ñu mun ko denc ci bërëb bu wóor bi nga xamante ne vraiment état bi dina ko mën a dina ko mën a gérer data center bi nag loolu moom moo tax moom mooy pàcc bu njëkk bi. moy manam ñu mom suñu bop ci walu ci ci wàllu données mais également ñu mëna développer économie numérique réellement ci biir dëkk bi donc loolu nag pour ñu mun ko def faaw ñu mën a am bërëb yu mel nii loolu tax président Macky Sall jagleel réew mi data center de type tier 3 bi tax euh, état bi mën a indépendant état bi mën a souverain ci wàllu woowu mais également ñu mën a accompagner euh, entreprise yi euh, entreprise bu mu munti doon ah comme mu nekk entreprise de presse comme mu nekk entreprise euh, boo xamante ne tey dafa soxla bërëb pour mën a héberger ay plateforme pour mën a liggéey donc tey euh, data center bi dina leen ko permettre mais également dinañu euh, def de telle sorte que emploi des jeunes bi nga xamante ne tey dafa une priorité pour l'État du Sénégal ñu mën a def de telle sorte que jeunes yu bare mën a am xëy ndax dispositif technologique yi nga xamante président Macky Sall teg na ko benn bi moom mooy fii ci ci Diamniadio muy data center bi bi nga xamante ne moom mooy euh, centre lépp li nga xamante ne mooy nekk dispositif bu ñu teg parce que data center bi dañu ko interconnecté ak euh, fibre optique bi nga xamante ne moom mooy autoroute information yi tabax nañ ko nag ci 45 wala sax 46 département wu réew mi yëpp donc loolu aussi euh, président Macky Sall boole na ci li ñuy les espaces Sénégal service espace Sénégal service yooyu li ko tax a jóg moom ci ben bërëb ci ben département ñu mëna permettre citoyen bi keuyit bu mu mëna soxla ci état bi mu mën ko am ci bërëb bob du soxla muy ñëw ba Dakar wala du soxla muy euh, jaabante ci ay administration pour mëna am këyitam bu ñëwé fofu rek day am ben conseiller bu koy recevoir mën ko gérer procédure am ba mu jeex ci anam yu gaaw ci anam yu transparent ci anam yoo xamante ne dina ko permettre moom mu mën a def liggéeyam ci ci lu ma gën a gaawee donc loolu gis ngeen que technologie vraiment dina mën a permettre ñu améliorer en tout cas qualité service public te loolu moom mooy mbëbatu mbëbatu président mais aussi service public mu gën a jege population donc loolu moo tax ñu am ko dans tous les départements donc buñ ko évaluer nag am nañu à peu près 720 personnes yi nga xamante ne dina leen jël au niveau de ces espaces-là Sénégal Service mais également euh, dinañu mën a accompagner start-up Nous nga xamante ne dañu soxla ñoom ay plateformes yu nous war héberger ci ay centres de ressources humaines mel nous euh, te démb ko don héberger à l'étranger tey ñu am possibilité que héberger ko fi ci biir donc su avons ñoom ci seen bopp dispositif qui dina leen euh, revenir moins cher mais également dinañu am capacité yu gën pour développer cette entreprise. Donc, pour on évalue, au moins sur les trois ans, le euh, département sénégalais nous mener accompagner au moins 4 000 entreprises. pour générer 15 000 emplois qui ont Telolu dans le que tout une sac nous parce que si nous mettons en synergie. ce que linga commenter dans le ci walu numérique euh, ñu mën a boole infrastructure yi ñu am yëpp ci état bi ci walu numérique war nañ mën a am beaucoup plus rawatina bu ñu ci lënkaloo ak secteur privé bi nga xamante ne ñoom tamit am na pàcc bu bari buñ ci buñ ci yor rawatina les opérateurs donc titulaires de licence ou les fournisseurs d'accès internet parce que infrastructure yi euh, ADIE dañu yàgg dañ ci yàgg liggéey euh, jagleel ko rek donc administration bi tey nag dañu ko ibbi donc secteur privé bi donc muy ci fibre optique bi muy data center bi muy espace Sénégal service donc loolu yëpp ibbi nañu ko secteur privé pour mun permettre ñoom aussi ñu mën a euh, suñu euh, en tout cas la qualité de notre vie euh, partout sur le territoire national qui est en jeu. donc liggéey bi nga xamante ne dinañ ko woon sénégalais à partir de demain.